ne euh, am na muy jëye joo xam ne lu ñu naxaru la li may wax léegi sëñ Saaliw naan ko euh, bu suus yëngoo yëngu euh, tali bi yëngu géej gi tam bëgg cee bokk dina xaw a doy waar waaye di san suñu borom mi nga xam ne ay coobareem rek ci la ñuy dox di ko nangu ndax moom mooy mooy lépp bu noppee loolu également livre bi nga xam ne mi ngi wéy di def actualité ci réew mi dinañ ci waxtaan dinañ jokkoo ak léegi professeur Massamba Gueye ci wàllu taarixu Sénégal di histoire du Sénégal nag li mu ci xam bëri na moom it dina yëkkati ay kàddu ak ñun ci waxtaan wi euh, ce sera dans quelques minutes Sidi Diop moom moo jeexal suñu sélection bu njëkk bi euh, dinañ ciy dellu soit en attendant euh, ma nuyu sama ñaari journalistes yi ci studio bi déjà ay bu rédaction bu King FM ki mom tay wax dëgg yalla alors pile la ñëw xale bu jigen bi te tard rek la daan def ay tay de xom lu xew ba mu ñëw heure di la ci sant di la ci gërëm Pape Madiakhate moom miin nañ ko ci ñëw heure ak ànd ak ñun na nga def sant alhamdulilah di la nuyu bu baax bàyyi sama jigéen bi ngay sànni xel ci fajar la dëkk kat bàyyi bàyyi sama jigéen ay damaa biddanteeg damaa yeex a jóg non day day am des fois nga yeewu xam nga rek sa nor euh, noddante nor nor yi balaa ngaa jub hmm. mu xaw a jël temps tuuti quoi yaa ngi koy défendre non non non yaa ngi défendre ku naqaree def ah <laughs> waaw waaw wax ak yow rek ma daal di rus sama ah, yaram daal di daw samay sens taxaw kon sa yaram daw na ma daal di def sama réveil 4 heures pile waaw ah, kañ yeewu ànd ak tali bi rek xale yi ma jajaji waaw boo nekkee xale da koy fatale rek <laughs> bonjour na nga def Penda maa ngi maa ngi si jàmm bonjour à toi Kaldi nuyu également suñu auditeurs ñu suivre euh, si King FM Dakar euh, ak ñi nga xamante ni tamit jamono gi ñi ngi samp seen radio ak ñi nga xamante ni tam ñi ngi connecté wu euh, ci suñu réseaux sociaux DJ Kaldi jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Penda Badji ñom nak bu ngi leen gisee ci studio bi rek xamni ni dañoo ñëw ngeen ñu décortiquer expliquer un peu ay info ay xibaar yoo xam ne tànn nañ ko ci suba Pape Madiakhate bi njëkk bi nga xam ne moom lañ nar a waxtaanee junj naa ko léegi mooy xew-xew bi am démb.

mujj euh, daal di rek këpp euh, ba ñu bëri euh, daal di ca am ay loraange. Mm. ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan. ñeneen daal di amee ay loraange ba dal ñu leen sax delloo ca île ba fa la ñu mujj mujj fanaan mu mu doon loo xam ne it kilifa yu réew mi yu ci bari daanaka. Mm-hmm. teewoon nañ foofee ca bërëb ba ci jiitu di njiitu réew mi Macky sàll mm. démb ci guddi teewoon na fa ay simili ànd ak ministre de l' intérieur ministre de forces armées ak yeneen kilifa ci réew mi. Mm. ngir euh, daal di teewee wàllu masaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ci daal di rek lorule euh, wax nañ ko ñeenti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan mu doon loo xam ne dañu koy métitlu euh, di ko di ko naqarlu bu baax a baax ndax nag ay doomi aadama lañ ñenn ñi ay ay doomu Sénégal lañ ña mm. ay yeneen nationalité lañ ndax dégg nañ ci ay français ay mm. ak ak Guinée Bissau guinéen jéye ju mag a mag ah, la donc loo xam ne la en tout cas c'est lu ñu lu ñuy naqarlu la lu ñuy métitlu la Sénégal nag fan yi moom dañuy yeewoo ay nouvelles yu doy waar bu weesoo dënnu yi nga xam ne euh, lor na ay ay doomi aadama euh, démb it euh, surprise la loolu ndax mbetteel la bakkan moom fu ñu ko déggee mu rot rek suñu suñu xol du neex mais président la république comme ni nga ko waxee démb dem na fa Aly Ngouille Ndiaye dinañ ko dégg également ci kanam tuuti ci sujet boobule naka noonu Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pêche Penda Ba tiis la ak naqar boo xam ne Sénégal amaat nañ ko démb.

xew yoy geeg yooyu hmm. day xawa a sambara peut-être que mo waral lu ni mel am parce que je pense que ni sax li moy euh, premier incident bu am ci île de la Madeleine hmm. donc mu nek une première rafilé ci Sénégal ay euh, ay ay euh, mo amone tamit ay étrangers yu nga xamante jot nañ ci jëlé ay gañu gañu également c'est à c'est à préciser hmm. du Sénégalais que c'est instant bi ñom ñoo ci ñoom ñoo ci loru étrangers également je pense que amna 4 6 français yi nga xamante jot nañ ci nek ay rescapés mu nek li nga xamanteni mon tor tort gi dama koy situer ci ñi nga xamante ni ñoom euh, ñi euh, nga xamanteni ñom ñoy ñooy euh, ñoy yoré bateau yi parce que tamet mëno yëpp ay bakkan yow do consulter météo xam nga ak yu ni mel lolu bu fekkon tay ji ñi ngi consulter météo ak yoy di bàyyi xel ci notion temps ak yoy je pense que mun nañu éviter genre incident yu mel ni mais lu ñu naqaru la fii ci Sénégal et depuis bobu autorité yaa recherche yi sax ñing koy woy di ko continuer jamono jile fofu ci Île la Madeleine c'est euh, euh li ngay wax nag mooy jël ay matukaay ndax euh, géej moom yaakaar naa ni kenn du ko songee noonu euh, booy seetlu sax ci météo yi dañ lay wax nii meilleur moment yi nga xam ne moo gën a baax pour napp wala pour dawal sa bateau dañ la koy wan kon li ngay wax ni mooy daanaka jël ay matukaay rek mhm. matukaay yoo xam ne it dina la mën a musal ci musiba yooyu te géej moom comme niñ ko waxee amul banqaas te mhm. bu xasee ba yëngu moom kenn mënu ci dara munoo munoo mhm. munoo woo secours ci saa si munoo def dara lu xaar rek nu bato bi di mujjee ak ak doomi aadama yooyu euh, état du Sénégal aussi jël nañ ci ay matukaay euh, bu weesoo assistance bi mooy ñëw taxawu leen euh, ba génne leen ci jafe yooyu ñàkk bakkan moom kenn mënu koo fay mhm. waaye taxaw bi daf ci am solo Pape Madiakhaté effectivement taxaw bi am na ci solo ndax gis nañu gi lu mooy kilifa yi nga xam ne teew nañu fa dem nañ daal di wàllu ña nga xam ne ñoom ñoo ci daldi mujje mucc maanaam ñàkkuñu seen bakkan dem aussi dal rek yobul len ay couverture rek ñom seen ndax ci ba lañu muju euh, euh, def len fa indil len fa la nga psychologue parce que yi bu it mhm. psychologiquement voilà assistance psychologique daf ci am solo ndax euh, lolé du ci ñak ñen ci ñom xawa jaxlé wala lolit le solo ñu ko it ngir ko ñu fay ñu fay si ñu indi donc lool taxawaay la bo xamne dafa am solo mais damay dikkaat touti ci li ci li Penda wax euh, pour appuyer ko. Mhm. par rapport ak mesures yi parce que man euh, yaakaar naa bu fekkee ne ñun sénégalais lambda wala nap kat yi euh, ñom la ñuy faral di wax ñuy baye xel bu baax li nga xamne mom moy météo buñuy buñuy dem bir géej donc c'est important duma comprendre aussi comme lim ko waxee ñi nga xamne ci bir lañu nek ils sont vraiment dans dans dans le ci bir de mbiri mhm. ñom ñuy dem te duñuy consulter météo ndax bu fekkee ne ci suba gi lañ fa demone ngir dem yendu fa bu consulter météo waron nañu xamné euh, il y a des risques de pluie. Mhm. après midi donc waron nañ jël que ba buñu ko xamé it euh, buñu bu ko ñu euh, parce que bu féké né dañu 18 heures il bobé mën fa que ba 18 heures la 16 euh, h wala 17 h waron nañ jël seen i matuwaay ngir jóge euh, ci li nga xamné mom modi moo di île boobu donc lolu euh, don na aspect bo xamné aspect buñu wara bayyi bayyi xel lolu lu important la comme ni ko mhm. Penda waxee mais benen affaire man bima xawa xaw ci mbir mi té lolu yakarna euh lolu ma dama yag def constat bi parce que buñu gissé gisee île bu melné ne île Serpent parce que li ñu pour fatali d'abord île des Madeleines mooy l'ensemble de deux îles mooy îlot Serpent bi nga xam Euh, fofu lañuy dem di visiter ak luñ luñ mi euh, nga xamné danaka daanaka bu ndaw la ay xéer rek lay ay ga ay doj kese la fofu, euh, nit munu mënee soufa dem comme ni ñu mën il demee donc euh, li nga xamné moy mooy mu laa mënul comprendre naka la site touristique bu mel noonu ak ni nga xamné non la bëri ay visiteurs parce que il faut ñu rappeler ko dafa bëri ay visiteurs yo xamné dañ fay dem bokk na ci site yi gëna visiter euh, ci site touristique yi nga xamné ne ñoo nekk fi ci Ndakaaru Sénégal de façon générale naka la ñuy site bu mel noonu te defu ba légui au 21e siècle en 2019, nit ñi di ci démé gal

mais lu tax yu mel noonu defuñu ko ci durée durée li nga xam mooy Île des Madeleine ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, Dakar. Euh, mm. bu ko defee ça va ça va être plus sécurisant dina ëpp kaaraange. Mm. que li nga xam ne moom mooy day faral di wax naan fagaroo gën faju effectivement donc je voilà musiba am ñuy doog doog jóg parce que man gaal yi vraiment loolu man gêné na ma quoi. parce que je pense que war nañ ko dépasser. Mm. bu ñu amee île bu mel ni nga xam dafa bëri je pense que Penda Badji war nañu jël ay ay ay ay soit leçon wala ñu jàngat bu baax. Euh, ci li ñu daloon ci batalu Joola jéey yu mel nii moom wax dëgg yàlla euh, lu ñu lu ñu war di moytu la parce que bu ñu xamee ni que euh, géej moom lu ne mën na la cee dal matuwaay je pense que il faut le prendre dès dès dès dès le début parce que li ñu daloon batalu Joola mhm. ñaanuñu yàlla mu dalaat ñu mhm. xëy na bii sax xaw naa xaw metti lool mhm. ndax ba bakkan yi ci faatu bariwul waaye mënoon na koo gën a ëpp mënoon na koo gën a ëpp ba pare Kalz man en fait li ma bëgg fi ma bëgg ñu gën a accentuer mooy man je me demande où sont les gardes-côtes parce que ñoom est-ce que ñoom seen liggéey ñu ngi def ñu waree parce que je me ni dañ dañoo war a ferme euh, ci loolee à savoir que ni bu fekkee ni am na bato yu nga xamante ni jamono yi la ñi ngi dem ci ndox bi ci moment bi nga xamante ni temps bi dafa yëngu mhm. ñoom war nañ jël seen ay matukaay mhm. interdire leen à ce que bato yooyu daw ci digg ndox bi mhm. quitte à que sax yooyu nappkat ñu mere leen wala yu ne mel ay sanctions ñu daal leen seen kaw je pense que ni loolu bu ñu ko doon appliqué nappkat yi dinañ gën a bàyyi xel ci euh, li li ANACIM di wax parce que tamit temps yi ANACIM mu ngi communiqué bu baax a baax ci flash ak communiqué bu mu mhm. dañ koy ci suñu ay yu mhm. plateforme mhm. site internet ñu ngi ci ni dina taw dina li mais c'est comme si que duñu informé wala buñ ko parfois ah wax leen neex rek mais tamit seen xam-xam ci donc cër am dañ leen à savoir que euh, ni euh, dina taw wala dina wala ñu bañ ñu jël au sérieux également garde côté def seen liggéey bu ni mu parce que yu ni mel su d'habitude sax doo leen doo leen sax sur place mhm. parfois da ngay laaj yenn ci ay nappkat ñu ne la carrément ñun gëj nañ dajante ak ay gardukat wala ñu ni mel donc je pense que ni war nañ leen renforcer bu fekkee ni dañoo nekk euh, en déficit mhm. renforcer leen bu baax a baax ñu gën a présent euh, ci géej gi euh, fu nappkat yi tourné gis leen également su musiba amee tamit mun nañ gën a nekk ñu nga xamante ni ñoo leen di njëkk secourir mu doon lu nga xamante voilà ñu mu doon lu nga xamante dina am solo bu baax a baax parce que je pense que ni bu fekkoon ils étaient beaucoup plus présents mhm. même su jëyee amee maara des taal yi je pense que ni peut-être mun

kaaraange gi dëgg yàlla euh, am na luñ ko ci dénk ñu euh, déglu ko et puis ñu dellu soit monsieur le ministre. bon mënuñu wax sax à priori que ñëpp a ngi woon ci gaal gi parce que ce qui est constant mooy bi affaire bi am ne na ñoo xam ne ñii dugg nañ ci gaal gi pour wàññeeku am na ñoo xam ne dañoo préféré woon toog xaar ba conditions yi favorable parce que quand même déjà euh, amoon nañu appréciation que ne wul na mag te yi demeewul noonu ce qui est constant aussi mooy bi nga xam ne bi loolu am na am na effectivement chavirement bateau bi am na ci ñu ci gaañu ni donc démb déjà ci guddi à un moment donné bi nga xam ne bi ci fa nekk la eaux et forêt dañ ko wax mu def le décompte physique et puis jël turu ñun ñi nga xam ne ñi ñoo fa nekk ci ko def ne parce que dans dañuy waxoon ne y a vingt cinq mais cinq euh, yi nga xam ne yii ñu ngi doon dund ñu euh, wax am na ñoo xam ne wax nañu ak moom ci téléphone bi parce que ñu ngi seen téléphone ñeent moom effectivement c'était euh, corps sans vie am na ci benn xale boo xam ne bii yaayam bokk na ci ñi nga xam ne ñii ñu ngi ñu ngi nekk foofu doon ci guddi dookas na ñoom jotuñu woon loru ci affaire trente neuf dont quatre corps sans vie mooy li nga xam ne décompté nañ ko dem ci guddi ñuy wax am nañu effectivement ñoo xam ne ñi wax na ni sont des personnes disparues parce que ñu nekkoon ak ñoom ñoo leen ñoo leen gisul ci décompte bi moo tax ñu ne am na ñoo xam ne ñii gisul leen donc du ñàkk tey ci suba dana gën a leer ak ak euh, la matinée

nous avons eu le général Djen, qui était l'hôpital principal m'a envoyé un médecin aussi qui était qui a embarqué euh, vers ay après vers une heure du matin war a dem foofu si nekk ñoom pour dalal seen xel indi le matin nag à huit heures sapeurs yi dañuy dem ak les de de loolu mooy réaction bu euh, ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu dénk kaaraange biir réew mi euh, mu wax ci li nga xam ne moom moo di euh, jéye ji am fële ca Île des Madeleines te mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñuy naqarlu la ñoom it ñu ngi commencé jël seen ay matuwaay mm-hmm. rawatina waa pompiers yi nga xam ne euh, bu yu mel ni amee rek dinañ leen xalaat bu baax parce que tamit euh, ngir sauver ay bakkan waaye tamit taxawu leen euh, parce que bu weesoo ñi nga xam ne dañ ciy ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu aussi psychologiquement mën na leen sonal tuuti ci seen bopp wala ci seen wér-gi-yaram raison pour laquelle ñoom dañuy def li nga xam ne mooy ñëw assister leen gunge leen ba ñu génn ci xat-xat yooyu ñu nekk. effectivement ba génnee leen ci ci xat-xat yooyu nga nekk li nga ni nga ko waxee di CALS état bi moom à travers ses loolu mooy cëram daal di wàllu ñi nga xam ne danoo nekkee ci ay jafé jafé hmm. bu yu melni daldi xewé donc lolu lu important la mais encore une fois dañuy dañuy dañuy waxaat rek encore une fois euh, c'est bien de de de de de de de réagir. Hmm. c'est à dire manam nga indi wàllu. Hmm. après situation bi mais amna yo xamné ne faaw ñu anticiper. xam nga euh, des fois bu ñukoy faral di wax. dañu naan dañu naan gaay yi dañuy toog rek euh, di wax waaye xamuñu li xew mais état bi ñom ño am responsabilité di jël seen devant di anticiper par rapport ak yenn yi. yi xam nga yi nga xam ne wax nañu ko fi euh, su ma juumul ñun li lépp loo xam dañ ko fi wax rek ñoom ñi nga xam ne ñoo ngànk nguur gi ñoo ñu ko gën a xam fuuf mm-hmm. euh, seulement euh, gën la ko xam te doo ko def it amul benn njëriñ parce li ñuy wax du leen lu dul ne Euh, lépp li nga xam ne jëm ci ci ci ci ne parce que pour fatali ñi nga ne de Dakar aux euh, îles des notamment euh, fi nga xam Serpent ay ay ay ce n'est pas des personnes qui ont personne lambda c'est des personnes yoo leen organiser organiser lu jëm ci donc ils sont censés nous ñu ñu jël seen matuwaay ba prévision météorologique pour xool exactement bonne heure la wara dem bonne heure la warta dem ban jour la dem ban jour warta dem en fonction du temps qu'il fait et ak prévision météorologique ndax jamono nawet lañu nek donc lolu déjà ben aspect la beneen aspect moy li ma doon wax euh, aspect gaal parce que euh, li tax ma dikkaat moy dafa dafa yagul dara dafa am ben ben ben ben ki nga xam blogueur bo xamné mom moom dafa dafa dafa demoon je pense que c'est l'année dernière en 2018 mu daal def benn tweet Euh, ci ci ci Twitter am euh, muy muy alerté par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy gaal bi yóbbu nit ñi foofee ca li nga xam ne moom mooy moo nekk foofu ci île Serpent mm. muy wax ne Euh, danger mu ngi ci ndaxte neena euh, gal bi nga xam mom mo moo nit ni euh, euh moteur bi koy yóbbu 40 chevaux la te faral na di paan lolou buy jugee. Hmm. li nga xam ne moo di di dem ci île hmm. donc mom def na alerte c'était en 2018. Hmm. fin 2018. donc bo waag léegi. rien n'a été fait. un aspect déjà mom limu limu li mu alerté mooy aspect sécuritaire bi. man la deuxième chose qui m'interpelle moy gal ci bopam mo waratul yóbbu nit ni ci dir bu toll non. c'est-à-dire nagn ko valoriser nagn ko jëmmal c'est une place touristique nous, xamné ñu dul ay sénégalais ci niñ ko gissé mhm. déjà ci bilan bi dañu fay dem donc nous euh, nanu gëna renforcer je veux dire gën a valoriser bërëb ba indi fa benn benn ay bateau sécurité bu doy boo xam ne mm. dina tax nit ñi fay dem mm. non seulement dinañ am dinañ gën a am fit dem fa mais mm. dinañ am plaisir pour voyager fa dem d'accord également euh, euh, euh, que voilà man uh-huh. pour rajouter un peu pour si pap Sarr fu mu daanelee mooy ci wàllu kaaraange ci lay desandi c'est-à-dire tamit war nañ tamit xoolaat entretien au bateau yi mm-hmm. c'est important c'est-à-dire c'est vrai que ni tamit war nañ waa war nañ waa ñu bañ a nekk ay xot parce que des fois nga gis ay bateau yu nga xamante ni tat ba day xoomaata xaw ma gis nga euh, fay rek boo fa demee rek mm. di pour traverser dem Gorée mm. da nga embarcadère da ngay gis des fois ay bateau yu nga xamante ni pourtant ah. ci kanam ni day taaru rafet ba dee ñu jëmmal ko peinturaat ko mais ci suuf du baax te foog naa ci suuf comme mooy laal ndox war tamit di ci di ci di di ci bàyyi xel <laughs> ni ngi tamit waa ni ngi tamit bañ a gis rek ni ni ngi tamit gis rek ni bi peinture nañ ko mu weex mu rafet rek wala ci biir yaatu na rek xam nga mm. rek nga ni waakee bi baax na loolu tamit c'est important ñuy xalaat entretien bateau yi peut-être loolu mun na éviter lu bëri bëri en plus que ni ñu wara tamat di bàyyi xel bu baaxa baax ci anasim ak météo li ma la bëggon la ci Penda moy euh, est-ce que tay du andi euh, ragal ci ñi nga xamne dañ doon bëgg di dem ci il bobu euh, soit di fa passé ay ay ay moment wala nga dégg tay par exemple tay ci walu tourisme mhm. bëri na di wax ngeen ko amna sax mhm. ay étrangers ñu cité ci biir mhm. tay ndax buma joggé France nek tuba mbaa ma jógee Allemagne dina amati fitu dem fofu problème de sécurité mën poser mën yaq sax xeyna na il île ba daan doxee est-ce que ëllëg ëllëgu il bi également xalaat ngeen ko ak jéye bi am ni waaw ba pare gis nga mooy li nga wax nii rek genre incident yi baaxul ci hmm, dëkk parce que da fay wàññi bu baax a baax euh, taux de visite yu touristes yi hmm, hmm. parce que tubaab da faragal gis nga buñu déggé ni seen i mbokk fàttu nañu ci bilep incident rek li nga gis ñu nga xamanteni buñu amone yene amoon suba dem fa sax dañuy ragal dem parce que dañuy xalaat tamé tamit lu ñu mel warna wara mëna am ba pare dañ koy médiatiser fu mu ne ni bo démé France ñu mel ñep ngay wax ni euh, chavirement amna euh, ci ci île de la Madeleine leen parce que seen ay mbokk ñom ñoo fa ñoom ñoo fa gaañu wala ñoo fa ñàkk seen bakkan donc mu nek lu nga xamanteni ni c'est à éviter mm. bien vrai que nak incident mum kenn du ko prévoir yalla ak ak ak ndogalam on n'en disconvient pas mm-hmm. mais tamit buñ dem jël suñu précaution comme tuba bi ni ngui koy défé mais dina tax ñu moytu nag ah. dina tax ñu moytu bu baax mais gis nga sénégalais moy ko xamanteni yow mm, kal mm. gis nga su incident amé tay mm-hmm. day moytu tay suba ak ginnaaw suba mu nekkaat léegi gis nga bu lo yëpp passé da nan toute façon yalla mo yor bakkan ku nekk wa fo wara déwé da ngay déwé fofu c'est vrai nag ku nekk fa jour boo war a dee moom doo ca rëcc waaye tamit bu ñu maytoo hmm. euh, xëj na daal dina gën a baax sutu nag nga yeb ay bakkan daal c'est important lu xew ñu ne ndogal waaye nag am na ndogal yoo xam ne ñoom ndogalu doomu aadama la yaa koy xaw xëcc mu ñëw donc suñu borom loxo ma ngi ci waaye tamit euh, moytu moom ci boppam sax moo ko njëkk a santaane donc euh, nañuy euh, moytu bu baax Serigne Saliou Seck yegg si na ni nga dugg see baax na ñëw nga demaat jërëjëf ñu ngi lay xaar ci <laughs> deuxième sujet bi rédaction ñoo dàq rédaction ci daa dugg daaw dama ko mu génnaat ñoo dàq rédaction ci ci réew mi très jeune très dynamique mais aussi très professionnel dinañ ñëw léegi ci ñaareelu sujet bi dama bëgg ñu dem déglu ji réaction bu Aminata Mbengue Ndiaye moom it moom la ñu dénk wàllum napp gi mm-hmm. di ministre wàllu lu wàllu pêche mhm. ah te fi mu ne nii boo waxee mbir mi moom di nga laal euh, pêcheurs yi euh, laal euh, intérieur di mhm. kaaraange réew mi mhm. waaye tamit président de la république kenn du ci génne loxoom kon ñu déglu Aminata Mbengue Ndiaye dellu siwaat nag ci studio bi jéem a jeexal sujet bi ñëw ci ñaareelu waxtaan bi nga xam ne tànn nañ ko am sécurité il faut que ñuy respecter bu baax a baax a baax consignes yi nga xam ne bi ñu leen koy jox parce que fii au niveau de Soumbédioune euh, waa ANACIM ñi ngi fi te waa ANACIM régulièrement ñuy annoncé li nga xam ne moom moo xew ci jaww ji li nga xam ne moo xew ci géej gi li nga xam ne moo war a ñëw ci asamaan si ak yooyu yëpp pour que nit ñi di tenir en considération yooyu nga xam ne moom la ñu leen di wax ak di leen wax tamit ñuy am ay gilet de sauvetage saa yu ñuy dem même bu fekkente ni gilet de sauvetage wax dëgg yàlla am na ci ñoo nga xam ne xeet nañu ko mais am na ñu bari ñoo nga xam ne sauvé nañu leen ci géej gi sauvé moom mooy gilet de sauvetage boobu kon bu ñu ko xeeb donc euh, atmosphère bi daal saa yu saa yu ñu waa ANACIM waxee ni ñu jarul ngeen di génn di dem ci géej je crois que ngay pêcheur wala ngay touriste ku ci nekk sécurité bopp moo la war a gënal gënal la ngay wut loolu moo tax ngeen daal vraiment nañuy veiller bu baax a baax sécurité bi réaction bu Aminata Mbengue jaay moom it doon nañ ko xaar mu yëkkati ay kàddu penda mu insiste nag trop nag ci wàllub euh, euh, li nga xamante ni moo di gilet de de sauvetage pour man mm. ne xel day fattu mm. mais euh, gilet yi mu nekk nit loo loo xamante dafa am solo loolu laa bëggoon a laajte léegi sax xam nga joxuñu leen ay <laughs> mais xanaa xam nga yow léegi yenn bateau yi dañ fay def ay gilet de mais gars yi bu duggee duñ ko sol parce que dañ naan gilet yi waaw bu ñu sañsee gilet yi diis na te parfois tamit gilet yi day salte calci ah, parfois waaw parfois day tooy ànd ak suuf donc boo xam ne bu ñu sañsee boo yu fashion yu bees yi nii bu ñu sañsee pare boo leen joxee gilet duñ ko sol ndax dañ naan lii day yàq sama sañse benn wala ñu bëgg snap nii nga bëgg cee boole gilet dañuy <laughs> euh, donc loolu yëpp day tax parfois gilet yi kenn gars yi dañ koy négligé ba pare tamit euh, gis nga nit dafa nekk koo xamante ni ñaawul njort boo duggee ci bato euh, doo foog ni da ngay donc du coup da nga naan ah gilet de mun naa koo bañ a sol garaawul donc nak léegi bo demee nak ba yalla bét la nak ak ben incident bu mel nii nag day fekk nak ñëpp dañuy il se pose la question à savoir la moo tax solo ñoon gilet la moo tax solo ñoon gilet mais peut-être que ni euh, ken ken ken joxu leen ko waaye tamit peut-être que ni ñom sen bopp ñu amone envie sol ko dañuy soog a dugg ci ba ci bato bi. Hmm. ba paré tamit également calze parfois gilet yi ça pose problème des fois nga dugg ci ben bato ñu ne amuñu gilet donc je me demande est-ce que ministère tamit ñu ngi len fa ñu ngi len faral di jox yi lépp don ay gilet euh, ak yu ni mel bu ko défé dal ñi nekk ci bato yi nappkat yeeg yooyu. bañ koo wax benn mbir de. Mhm. réew mi yëpp ay gilet la. <laughs> gilet yaa ngi fi de gars yi ñoo ko solul. non sérieusement ah. ngi fi gars yi nga koy joxe parce que. ONG yi dañ koy maye. Mhm. ah soo demee ci société yu mag yi foo dugg am na fa. port fii rek boo fa demee gilet yaa nga fa ne gaañ. am na fi ah. mais ñi ñoo ko solul nag xaw a mi ngi mel ni tey ki yor otoom rek di dawal te du takk ceinture. cest amuñu habitude bi. benn ci am pagaille surtout surtout cas boobu. surtout cas boobu ah. nit ñi duñ takk seen ceinture de sécurité ah, dañuy bàyyi ba gis si gendarme wala policier seen kanam. sénégalais avion sax da ciy dugg ñu naan ko takkal bu takkee ba avion bi décollé mu dindi ko. non mais nag c'est des ay habitudes yu bon la yoo xam ne dañ koy dañ koy amaale mais c'est c'est dangereux. Mm-hmm. nit moom lépp loo xam ne pour sa kaaraange la rek. no bul ko caa bul ko sàgganee ndax eh, mooy li nga xam ne moom moo lay aar li nga xam ne moom moo lay wattu bu jéyee yu mel nii daal di amee eh, man de en tout cas duma duma du ma dugg du ma gaal man ba di sàgganee li nga xam ne moo di sama bu nu ma ko jox joxalit dinaa ko laajte eh, buñ ma ko joxee dinaa ko takk ba mu dëgër tant que wàccu ma ci biir gaal gi moom duma ko duma ko tekki parce que nit aussi yow yaay am say fullaay bopp li nga xam ne joxuñu la ko te te mu war da koy laajte daal di imposer ko parce que loolu mooy li nga xam ne mooy liy yoon jërëjëf alors foofu la ñuy euh, ndar keppee nag waxtaan bu njëkk bi Euh, jëmoon ci li nga xam ne moom mooy euh, wàllum euh, jëye jooju amoon démb beneen sujet bi ñu ngi ñëw léegi waxtaan ci livre bi nga xam ne moo lëmbe réew mi ku ci ne ca histoire Sénégal niñ ko bindee ñi nangu ñi bañ këru diine yëngu waaye it am na ñenn ñoo xam ne dégg sax dégg naa démb waa sëtu buur si ni defe naa ñoom it yëngu nañ démb ne lañ leen bindal ci livre bi neexu leen man nag dinaa ci xooli sama histoire maam ndax niñ ko defee noonu ah! bëgg naa xam ndax sama maam juum ci moom yow kan ah? may sa maam déggal lii surtout Alburi la il faut que dem xool sama maam parce que am na yu ma xamal sama maam. en ma ci gisee daal coow li loo xam ne nii la sama maam defu ko. Ah. dinaa woo professeur. <laughs> def ni gars génn def sortie mhm. léegi nañu dem déglu tuuti en titre rapidement rek euh, ñu ñëw nag jokkoo ak professeur Massamba Teye euh, di euh, koo xam ne naw nañu xam-xamam bu baax ci histoire du Sénégal ak kàddu yu rafet dinañu jokkoo ak moom léegi ci waxtaan wi Serigne Saliou Seck moo yegg si ànd ak ñun ci jotaay bile ñu bégal leen ci titre bi nga xam ne mool yi lañ ko jagleel ku wax waxi géej nag sa xel dina dem ci ñoom ndax lu mel ni da leen di xaw a interpeller un peu on écoute ce titre le temps de retrouver professeur Massamba ci jotaay bi ngir ñu waxtaanee deuxième sujet baby. Wow, wow, wow, let me get you in. What you wanna make? Let me get you in. mu ni xoolal kee lépp ngi ci biir mu ni waaw waaw waaw lépp ngi ci biir mu ani xoolal kee lépp ngi ci biir dafa ñuul dafa yëgalal gitaar bi dañuy togg ceebu jën benn mbay nanooy nanooy Youssou Mbene ma ne loo wax on va préparer le ceebu jën benn mbay Youssou nañu baye ba midi ñu wax waru waxu waxu waxu ci bu jën bi acca euh, on enchaîne sans plus tarder ci ñaareelu sujet bi nga xamné tan nañ ko waxtané ko euh, sujet la nak bo xamné presque une semaine ou deux semaines ñi ngi ci wax ci Sénégal hmm. euh, jëm ci livre bobu nga xamné dañu dañoo ay kangam ci taarixu Sénégal ñu bindu binduwaat bindat histoire bi jur na nag ay coow coow yi nag li ñu ciy sàkku rek moy bu ñu demee ba ci cappaandaw ga mu jur jamm ndax ku ci ne rek da bëgg xeyna fessel fësal surtout sa histoire njaboot wala sa wa kër bi ci ñëk nak ñu ràññee ko mooy euh, génnum euh, Ahmed Khalifa Niass le grand le grand marabout ñu ngi koy nuyu bu baax Ahmed xalifa euh, moom moo ci njëkk a génn wax ci bi mu noppee nag am na ñeneen ñoo xam ne àddunañ ci ay kàddu waaye lu ci mënti am rek bëgg-bëgg bi mooy ñu teg ko ci jàmm ak dal loolu moo waral ñu nit ñu tànn ngir waxtaanee ko ci jotaay bi la Serigne Saliou maa ngi lay nuyuwaat yaa ñu rejoindre léegi ci waxtaan wi comme ni ma ko junjee livre boobu la ñu bëgg a waxtaanee. ngi noonu livre Charles di nuyu Penda ak Pape Sarr di rafetlu waxtaan bi ak léegi ci pàcc bu njëkk bi nga xam si moo def actualité beneen bi wax nga ko léegi muy coowul euh, livre bi di histoire taarixu Sénégal bi ñu wax ni dañ koy bindaat te it euh, mënul bañ a jur coow boobaak léegi tamit mi ngi jur coow xam nga léeg-léeg ñu wax ni dañ ko war a teg ci suuf mais mhm. nag ñun ay taskatu xibaar lañ ci suuf mi ngi def actualité mhm. loolu moo tax ñuy continuer di waktane, waxtaane wax nga ko ni sànq Ahmed Khalifa smo moo moo ci wax mhm. te ñu bëri nak nañu ràññale ni nekkul ni ci njabootu Niasseen gi Ahmed Khalifa Niass rek moo wax dafa fek ni rek moom moo ci gën a xam nga dogal bu génnee di wax rek day wax ba bañ ràññee ko c'est ça la quoi mais gi ci bu Medina Baye ñoom ñoo noppi woon ngir euh, amal doxu ñaxtu gannaaw bi nga xam si euh, wax nañ ci ci ak fàttali sax euh, professeur Iba Der Thiam moom ngi ma ànd li ñu bindoon dañoo bind ni maam Abdoulaye Niass ci école Maodo la daal di bokk. Mhm. loom nag loolee moo leen naqari woon sànq yaa ngi tooñ di ko waxaale muy di nga sax laajal say maam ñu bëri jóg nañ di def lu mel noonu Calze. di wax ni dañoo war a euh, ku nekk sa maam est-ce ni ñu ko waxalee noonu la lañ coo ca bindal bu fekkee famille njigéen bu nekk cees li ñu wax mooy euh, li ñu leen bindal ci taarix bi dafa ndaw Euh, bu fekkee tamit euh, ñi nga xam si ñoo di ceddo yi dañoo wax ni ñoom def nañ fi lu bëree bëree bëri waaye lu tuuti lu néew lañ ñu wax ci euh, ci seen histoire. maanaam li leen cofal dafa tuuti. liñ leen cofal dafa tuuti. lool di hmm. loolu di tekki ni taarix moom fu ñu ko bindee faaw moo am jafe-jafe dégg nañ tamit professeur bu hmm. Ousmane Sène bu Wark. Hmm. di ngi nekk professeur université tamit mu ni ba xam am na mas ngeen a dégg réew mu ñu bindaat taarix ba te. amul coow amul coow loolu lépp xam naa ni dinañ ci gën a waxtaan ak professeur. Penda comme ni ma ko waxee léegi waxtaan waa ngi noonu noonu jëm ci euh, li nga xam ne moom mooy livre boobu ouais mu nekk nag coow bu rëy ci fàttali nag projet bi léegi professeur da cee ànd ak ay nit ni ay professeur itam mhm. ak it ay guide religieux ak ñi nga tamet ni tamit famille religieux bu nekk mhm. am nga ca kenn ni nañ ko ca ngir gën a xam la mooy taarixu famille boobulee loolu tamit c'est important mhm. de le préciser également livre bi fu mu je pense que ni ñu ngi ci 2727 euh, pages la ci euh, petit ci premier chapitre bi donc mu nekk xamante ni cinq tomes la war a nekk mm-hmm. mm-hmm. mais ñaari paragraphe rek ñoom ñoo jurugum coow bu ne ñoo jur coow ci famille ci famille religieuse donc juste pour rejoindre les Serigne wax mënu bind Sénégal mm. France mm. wala feneen ak feneen donc foo ko foo ko foo ko yëkkatee rek dina jur coow parce que même yow mi sax sa famille buñ commencé indi di nga ñu nañ donc mu lu nga ni tu peux pas satisfaire tout le monde donc coow fallait mm. s'y attendre et je pense que ni du woon nga xamante imprévu ci euh, professeur Ibader Der Thiam ak nga ah, professeur Ibader Der Thiam may fàttaliwaat ni historien la waaye tamit professeur le boo xam ne yàgg na ak Sénégal taxawu ko ci yu bëri ci wàllu njàng mi euh, def nañu la semaine passée euh, wax ci moom waxtaan wi nak biñ ko sumbee ci suba ci dañoo décidé and ci ak professeur Massamba ñu naw ko lool momit ci xam-xam bi ak cadeau yi nga xamné ne faral di yëkëti ci Sénégal momit histoire du Sénégal yi yitteel ko lol mu ci gunge ndaw ñi à chaque fois ñuy ay euh, dégg ay message yo xamné day joggé ci mom euh, dal ci ndaw ñi raison pour laquelle euh, ñu décidé and ak mom ci suba ci professeur Massamba ñi ngi lay nuyu. Kalz maa ngi leen di fay di nuyu soxna Penda di nuyu seigne pap maa ngi lay fay. Mm-hmm. sax nuyu sëñ Saliou damay bañ a sant ndax. <laughs> waaye maa tur bi moom baax na ngi nuyu. waaye sant wee xaw a doy waar. ayca. professeur li ñu li ñu tàmm waxtaanee li ñu tànn waxtaanee ko tey euh, mooy livre bi xaw a jur coow ci Sénégal euh, ndaw ñi nag mu xaw leen a yitteel lool parce que euh, bu ñuy wax histoire Sénégal bu fekkee da nga nekk ndaw nekk ci réew dafa lay yitteel waaye bu xawee jur coow yoo xam ne day jóge non seulement ci ay këru diine de temps en temps mu jóge ci ay kilifa yoo xam ne ay kilifa aada lañu dina indi ay jiixi jaaxa ci ñenn ñi ndax mën nga ci àddu ay kàddu ci déjà li nga xam ne mooy situation actuelle bi. waaw lii nga xam ne moom lay njëkk doore mooy euh, ginnaaw bi ma jàllee ñi fàttu démb. Mhm. Euh, te masawu coono ñii ci rëcc mooy fàttali ci sa njëlbeenu wax bi nga may laaj danga ne ma livre bi looloo indi coow li mhm. ndax du ndax du livre bi. Mhm. ndax livre bi moo indi coow li. kon maanaam ñu koy wax ñëpp livre xamuñu sax lan. genn wàll. ndax du livre. histoire générale du Sénégal. liñ ci nit ñi fas yéene mooy euh, def ko ay pàcc. Mm-hmm. maanaam ñaar fukk ak juróom ci téere yoo xam ne benn bu ci ne dana ëpp junniy junniy junniy junniy xët. loolu su fekkente ne am na nit ñi dañu war a dal bu dee dañ ne juróom rek ci génn te mu des ñaar fukk. Euh, ku nekkul nag milieu université doo xam différence entre kiy bind histoire général ak ki nekk ci ab néeg di taggaate ak kiy wax ci maamam. ci biir université dafa am ñett yu bokkul benn bi mooy agiographie agiographie mooy ngay nettali taarixu nitu diine laxas ci biir nettali bi kéemaan yi mu def kéemaan yooyu képp koo xam ne bokk nga ci diine jooju da koy nangu waaye ku bokkul ci diine ji bu nu la ko waxee da nga doo ko nangu reñaanum yonent bi tey boo ko defee ci taarix képp ku jullit da koy nangu waaye koo xam ne gëmut yàlla boo koy waxee def naa la nit mënut a jógee fii dem te kooram demut yooyu booy bind histoire da ngay da xaar ne euh, am na ci yoo xam ne bu ko wala cofoo ko wala na koy bindee bu fekkente ne làkk bi nga koy bindee ki koy liir làkk waa la muy wax ak li muy wax moom benn mën na indi ay coow loolu moom moo tax mu xaw a jafe kon li may bëgg a wax mooy du benn téere euh, juróom moo génn ci ñaar fukk bu dee juróom yi génn borom xam-xam yi laa wax de waxuma borom xët-xët yi ndax dafa am réew mi borom xam-xam ak borom xët-xët. borom xët-xët mooy koo xam ne euh, lu mu jóg rek waxee ko doole borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne ci kër yi te am firnde yu leer ne lii nu wax ni du nii démarche scientifique du yuuxu du saaga mooy def proposition livre buñ ko bindee euh, mën nañ ko corriger mën nañu retirer livre yëpp de l'édition rééditer ko loolu ñun ñu nekk université loolu du du lu bees ci ñun donc loolu laa bëgg a wax ne euh, am na ñu naan lu tax ñu waxee nii sunu maam question bi ma leen di posé mooy ñeneen Sénégalais yi nag yeneen quatorze millions yi kenn tudd seen maam nag ñoom lu ñu war a wax. Hmm. ndax mën nañ quatorze millions yi kenn ku ne ñu tudd sa maam wax la mu def loolu dama bëgg ñu def ci ndànk beneen bi it ci gëstu yi ñuy gëstu euh, sama yaay daf ma daan faral di wax kalse yàlla ko yàlla yërëm. waaw. Euh, daf ma daan nettali mbir ba pare ne ma lii na yem ci biir néeg bi. man la ko lu tax mu ne ma am na koo xam ne tey jii euh, kër gam defe ne fan a bokk boo nettalee lii nam ay maamam duggee ci kër googu du rafet. Mm-hmm. te réew mi jàmm na soxla soxlawut. Mm-hmm. ñuy ñuy ñuy ñuy xàjjale. Mm-hmm. waaw kon du ma ñëwaat ci li nga xam ne moom moo indi coow li. Mm. waaye defe naa ne kër gu ne am nga droit bind sa histoire familiale. dëgg la. Euh, kenn képp koy euh, bu fekkoon liggéey boobu te defoon nañ ko. Mhm. nga xam ne tey les grandes familles ñi taxaw tey naan buur siin yi ñu wax ne bu biir siin mhm. mën naa nangu li ñu wax waaye euh, information bu baax amee ba léegi lan moo tax publier wuñ ko. Mhm. lan moo tax liste boobu defuñu ko à la disposition des jeunes ñoom ñu jot ci boobu ba léegi. ñu toog ba tey di wax ne ñun yor nañ liste boo xam ne. kenn xamul liste boobu fu mu nekk.

waaw lii waaye histoire générale li ko tax a jóg. Hmm. du tagg maamu kenn du xas maamu. kenn déedéet déedéet hmm. déedéet. oui waaye wane. Hmm. xam nga euh, ñu bëri xamuñu ne ñu ngi histoire des plaques tectoniques gu Sénégal mi ngi ci. suuf si lu tax mu mel nii. histoire de la musique sénégalaise dana ci nekk. est que am na volume spécial boo xam ne. dafay jëm ci nan nan la réew mi jaxasoo. nan la mbokk gi tëddee. mais démarche scientifique boo ko xamul. waaw loolu de dëgg la. <laughs> <laughs> alors professeur euh, Massamba Gueye maa ngi lay nuyu bu baax Pape Sarr euh, di la di la di la jaajëfal ci euh, waxtaan wi nga xam ne ak leeral yi nga xam ne yaa ngi ñu koy indil jamono ji ci mbir mi nga xam ne jamono ji bari na ñu ci ñu ciy wax na nga ko waxee moo ne day xëy na xamuñu ca lu lu bari wala xët-xët la ñu cay waxee yaa ngi koy wax sànq ci ci ci say kàddu ngay wax ne du lii livre bi war ñu ko jàppee ne ab agiographie comme ni nga ko waxee. du question ne dañuy jël ku ci nekk rek sa maam euh, wax ca la nga xam ne moom mooy euh, ay ay mbir ya nga xam ne def na ko waaye dañuy jël rek ak pàcc ngir daal di daal di cay cof ngir ngir wax fa mu jaar ak fa mu cosaanoo est-ce que jàppoo ne ca njëlbeen nga ci communication bi lañ waroon euh, wax loolee ba mu leer ñëpp ndax ngir ñu mën a xam ne. lii am nañu am na sax ñuy wax doguma la ñuy wax naan dañu lajj communication bi. est-ce que est-ce au début du du foofu xëy na lañu waroon leeralee nit ñi ne du ñu jël ku ci nekk daal di nettali say jaar jaar lire ci ñi nga xam ne def interpellation dan naan am na lu ñu fàtteel sama mam amna lu mu def kenn mënut a li euh, te tuddoo ci sama mam kenn mënut wax ke te ci sama est-ce que aussi euh, du ñak peut-être euh, ci démarche bi communication bo xamne dafa xaw a ba ñin ñi comprendre ñu ne du looloo ko taxaw no juk loolu moy question bi deuxième question bi par rapport ak oralité la est-ce que japoné problème bi deug du question ne li oralité dal di jitu loolu yag loolu ci sunu ak sa mu dikkee ci ñun yagul loolu loolu aussi mo gën a euh, poser euh, surtout euh, problème bi ci li nga xamné moy histoire générale du Sénégal bi. sëñ Pape jërëjëf ñaari laaj yi am nañ solo te dinañ ma may ma wax benn bu njëkk bi gis nga fii réew mi kenn ku ne sa maam la bam mu demee xare ba muy ñëw dawut te yàlla xam na ne xare bu ne am na ko ko gañe waaye ku ne boo koy nettali da ngay nettali ne sa maam a gañe xare bi loolu moom mooy mooy ne boo duggee ci biir kër tey di nettali borom kër gi nan la tekkee bu fekkente ne ay wujja nga fa géwalu juddu ndaw ñaari jabar yi kenn ku ne bu ñëwee nam koy nettali doon benn ndax day bëgg a wane jigéen gi mu bokkal kon question bi nga posé c'est une question essentielle mooy kenn ku yaakaar ne dañuy nettali détail yu détail yu sa maam la mu def sa maam la mu deful am nga ci droit mais

kon boo ko lié ak li nga wax léegi mooy nga ne ndax dafa am problème mu communication et cetera man de fekkee naa jataay yu bëri yoo xam ne dem nañ ci ay këru diine dem nañ ci ay pénc fekkee naa jataay yoo man du ma seen avocat du ma seen porte parole ñoom xam nañ ko du ma seen avocat du ma seen port parole mais li may seede te yàlla fekke euh, mën ko seet mën ko ci mën ma ci àtte mooy am na yoo xam ne communication bi même su defee am na effort bu ma gisoon boo xam ne effortu nañu ubbi la nañu dem def ay forum dem dajale penc yi ñu waxtaan daanu nag dajul suuf te def naa ne communication bu fekkente ne am na erreur nañu comprendre que professeur bi Iba Thiam ñoom bi ñuy départ kenn forcé wu leen ñoom ñoo toog ba ci àgg nañ tubaab bi nim mu bindee suñu taarix baaxul léegi nag nanuñu waxtaan ñu def ay commission yu bëri man fekkee naa ba tax ay communicateur traditionnel ay géwal ñëw mais kenn ku ci nekk man gis naa ci ñoo xam ne dañoo ñëw wax ñu ne ñoom version bi arrangé wu la mais ñun au niveau de l'université li ñuy wax mooy que version yëpp. boo ko mhm. amee boo ko croisé. Mhm. loolu mooy oralité bi ngay wax man mooy sama spécialité. Mhm. ñun pour ñun un récit c' est l' ensemble des versions. bu ñu jëlee l' ensemble des versions version bi Kals def ci Alboury Ndiaye ñu wax Alboury Ndiaye ni mu génnee dem Dooso boo am na noo koy présenté day mel na ku daw.

épique des faits historiques gis nga mbir day am nga traité noonu noo xam ne boo ko waxee nit ki yaramam day daw mooy nga utiliser ay adverbe nga utiliser ay adjectif mhm. bu fekkente ne da ngay wut rigueur scientifique. Mm. boo roccee adverbe yi rocc adjectif yi fee rek mooy des. Eh, dëgg de. traitement de l'informe léegi nag dafa am lu le euh, traitement. Mm. historique des faits épiques. Mm. am le traitement épique des faits historiques. Mhm. maanaam euh, diw de ba mu demee xeex ak ñaari ngaw la dañ naan moom de da ko boole ngaari ngaw mu toog ca kawam béjjën yay tàkk. Hmm. loolu mooy le traitement épique ndax dañ ciy def loo xam ne dafa extraordinaire. beneen bi. beneen bi mooy le traitement historique de faits épiques. Hmm. maanaam. bu fekkente ne dañ ne la. Hmm. keroog de ba mu yéegee ca kaw nag wa. béjjën bay tàkk ñun dañuy jàpp rek ne yéeg na ci kaw nag wi. béjjën bi tàkk ak bañ a tàkk yéeg na ci kaw nag wi xeex na. xeex na waaw. ñu jàpp ne xeex ba kon am na. Hmm. yéeg ci kaw nag li am na ndax ñi nettali ñëpp wax nañu loolu waaye nag béjjën bi tàkk nag ñii d' nañ ci. d' accord ci te te te histoire d' noonu lay demee euh, ñii dañ ciy ànd ña ca des aussi wax leneen Serigne Saliou Seck. professeur laataa ñu lay bàyyi ngay ndekkiwaat ñu laaj la question bi nga xam si <laughs> muy euh, dégg nañ euh, kuréel gi parce que ba fii nii sax am na ñu ñuy déglu ñoo xam li ñu jàpp moo di professeur Iba Der Thiam rek moo ko bind. te kuréel la goo xam si moom la àndal tey it dégg nañ ko ci mel ni El Hadji Bécaye Mbaye mu ni doon na baax bu ñuy bindaat taarixu Sénégal ñu boole si géwal yi est-ce que tamit jotul ñu leeral dëgg-dëgg ñi nga xam si ñoo ñoo seq mbir mi. allo waaw professeur. waaw dama ni euh, dama ni euh, kuréel gi ñu bëree bëree bëri fi mu ne nii ñun jàpp bëri na sax ci ñu ñuy déglu ñoo xam ne lu ñu jàpp moo di professeur Iba Der Thiam moo ko bind. te mm. dafa am ñu mu ci àndal El Hadji mm. mbay li mu wax ci suñuy antenne moo di doon na baax moom sàkkuwul moom Bécaye ñu boole ko ci waaye ñu boole ci géwal yi ndax euh, moom pour moom euh, bindaat taarix te boolewu ci boolewuñ ci géwal loolu lajjate la ko jàpp yow loolu ban jàngat nga ci am waaw lan mooy ñan yi rek <laughs> xëy na communicateur traditionnel yi am nañu kuréel ñan

mais géwal moom juddu moo koy joxe. Mm-hmm. bu mm-hmm. fekkente ne yow bokkoo ci mën nga ne bokk ma ci waaye bul na géwal yi bokk na ci. dëgg la de. Mm-hmm. bu dee professeur Lamane Mbaye géwal la géwal yaa bu dee professeur Babacar Mbaye géwal la ay doomu géwal lañ soo ko jàngi. <laughs> man mii di wax ni sàmm ma kalaatu ma kalaatu jub bi war ña bi way ñaari bañ naa. waaw professeur de déggoo bi neexul boo mënee gën a jege micro bi tuuti rek nga baal ñu. allo voilà la la laa ñu ngi lay dégg. waaw donc dama ne. li Bécaye wax dama d'accord ci principe bi que géwël yi c'est des créateurs d'histoire ñun loolu moo tax bañ demee université bi département histoire amee ñu xeex ba département études africaines am ñu ñu def suñuy thèse pour valoriser les traditions orales mhm. ndax nit dina def loolu ba pare bokk ci liggéey li taxoon li ma vuyee sama adduna bi man loolu amul sens mhm. man mii di wax ak yow Leyti Guissé Leyti Guissé moo jur Lorou Guissé Lorou Guissé moo jur mhm. te Leyti Guissé mooy historiographe bi nga xam ne moom mooy moo mooy nijaay Samba Jabare Samb moo ko formé mhm. kon nit ñi di mettre en avant ne ay doomu ñeeñu lañ wala ay lii lañ mhm. dañuy mettre en avant wax ci tey dëgg la loolu moo ci am solo wax ci tey waaw wax ci tey mooy ku yor information te yëg na ñu ngi bind histoire générale du te nga bëgg mu baax nga andi ko jógal nga fekk professeur Iba Der Thiam nga ne ko man xam naa ci ko ci parce que nak loolu rek moo mën a nekk mais euh, ñaara mën a nekk soit di ko yor dem soit ñi xam li ñu war a wax ak fulla ju toll ne dem ne lii la bind leen lii mhm. def naa ne nag am na jiw mm. yu ci boole am na jiw yu ci boolewul. am na ñu ci boolewul alors euh, Penda rapidement peut-être une question bu professeur balaa ñu ko bàyyi ni ko euh, Serigne Saliou Seck waxee xam naa dañ ko fekk ci ndékki li ah, peut-être rek pour savoir léegi comme situation bi demee na nii comment faire pour rectifier le tir. waaw ni ñuy rectifier le tir soxna Penda mooy. nit ñi waxta yàlla tax. dëgg la. waxta yàlla tax mooy professeur yu bëri si état keroog ba coow li bëri def na communiqué ne ne ñun ñu ko bindee kon du du woon nii lañ ko war a bindee. Hmm. li nga wax sama maam de d'accord ma ci mu bind ne la li nga wax li nga wax ne moom laa wax nii ma ko bindee waruma ko war a bindee nii. Hmm. ndax en français dañuy wax école école de pensée. Hmm. école de pensée nag boo ko bokkee sa kilifa. waaye comme da ngeen a jàpp nañ ñun dañoo ñun tuub nañ def na communiqué tooñ nag lu mu lay ko ëpp moo ko gën a rëy mhm. réew mi nag lan lañ bëgg ndax dañoo bëgg a profité pour régler ay problème personnel mhm. wala ndax dañuy profité ci cinq mois yi génn ñu ne nañ ko retiré ñu tuugaat waxtaan mhm. waxtaan wi nag mooy kenn du profité ci histoire générale u Sénégal pour euh, yàq nit wala nga defar nit dañuy defar réew mi man pour man wax ji foofu la nekk nañ jël famille fam gis nga famille yi ku ne am nga chercheur am nga scientifique nañ jël chercheur yooyu ñu délégué leen ñu togg commission bi ñu waxtaan te ñi ci xamul dara ne man ñu noppi ngir yàlla jëm rasulaay ndax réew mi jàmm rek la bëgg liñ bëgg daal mooy histoire bi génn bind ko bind volume yëpp bu jeexee nag chaque deux ans ñu gindaat beneen volume ajouter en fonction des informations qu'on a, mais on ne finira jamais d'écrire l'histoire de ce pays-là. au mmh, mmh, mmh. euh, professeur oui ñu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, ci ànd bi ñu àndoon ak yow ci suba si muy mbégte mu rëy euh, ñun nag comme ni ñu koy waxee danga bokk ci euh, ci réew mi kilifa goo xam ne bu waxee dañ koy bàyyi xel ndax njariñ rek lañ ciy jëlee rawatina ndaw ñi man personnellement damay faral di suivre say sorties ak waxtaan wi nga xam ne da koy faral di séq ak ñun ñu lay gërëmaat bu baax a baax a baax jëlee nañ ci njariñ lu bari li ñu mën a tënk daal ci waxtaan wi mooy nañ ci ànd ak dal ndax histoire moom bu ñu ko bindee ku nekk ak na koy gisee waaye jarul coow man loolu laa sànq Euh, jarul coow jarul xëccoo waaw mooy tënk bi hmm. euh, kenn ku ci ne nañu nañu wax pour defar hmm. mais bu kenn wax pour yàq déedéet ndax euh, wax ba yàq amul wax ba yàqoo am dëgg la maa ngi nuyu seen kilifa Pape Cheikh sama doom hmm. ñaanal yàlla

professeur euh, Iba Der Thiam mi nga xam ne euh, moom lañ ci gën ràññee nangu ni mm-hmm. euh, njuumte am na ci waaye teewul ni mbir mi jeex na si si si su ma juumul sax am na yeneen yu ñu ci war a yokk yoo xam ne mm-hmm. au fur et mesure lañ koy découvrir ci ci ci ci histoire boobu nga xam ne ñu ngi koy bind Pa Madiakhaté tout à fait ni nga ko waxee Kalz noonu la démarche scientifique maanaam lépp loo xam ne dañuy ay nit dañuy toog di ko liggéey mm-hmm. ngir nga mën ko nga mën ko joxe rek munta bañ a ñàkk ay ay njuumte parce que nit moom lépp lu muy liggéey borom képp mooy ki nga xam ne euh, du def tey juum donc euh, déjà loolu il faut ñu comprendre ko mais il faut ñun ñi aussi ñu ànd ak dal comme professeur Massamba Gueye ni mu ko waxee léegi ñu koy jaajëfalaat bu baax euh, ku ci nekk au début xëy na da ngaa yaakaaroon ne bu ñuy wax sa askan wala bu ñuy wax sa maam dañuy wax la nga xam ne moom mooy jëf jëf ya nga xam ne jëf yëpp parce que la plupart ci li nga xam ne ñi gis naa ko ñu koy ñu koy commenté dañ naan la ñu wax ci ñun daa tuuti ñii naan lañu wax sama maam daa am la ñu fet la ñu ca fàtte te lu am solo la

déjà que français dafa compliqué langue yi que compliqué la ci aduna bi deuxièmement nous ñi nga xamné sax yaakar nañu ko yaakar ne dañ ko dégg ba ci ñu ci man nous ba ci ñun ñi di wax ak euh, euh, dégguñu ko bu baax ndax euh, amna lu bëri lo maîtriser wuñu ko ci donc déjà c'est un problème parce que bo déggé des fois nga gis ñenn interpellation euh, explication ñi def ci ci syntaxe déjà ça te montre que comprendre ñu expression bi ci ci français donc lolu déjà Voilà, voilà euh, français bi également mm. c'est c'est très important parce que mm. yenn terme yi wala mm. yenn formule en français nit ñi neneen nañ koy interpréter nu dul li muy signifier rek donc xeyna lolu aussi ben problème la bo xamné mu ngi ci euh là également peut-être euh, xeyna buñu ci noppé dana baax euh, ñu ñu jéem jël yenn patch yi xëy na dina jafé ñu def ko lépp mais jël yenn patch yi ñu jëm ko traduire ci différentes langues nationales ba nit ñi gën mëna comprendre voilà parce que lolu important en tout cas limu ci mëna terminer moy ci mbir mom moy euh ñu jël affaire bi moom teg ko ci suuf man loolu du sama gis-gis mm. ndaxte euh, bind taarixu réew moom mm. loo xam ne loolu important la dañu ko war a def ndax nag euh, on a le choix mm. soit ñu bàyyi la fa nekkoon moy tuba bi ni ñu netalé suñu histoire te mm. japp ne dañ ko biaisé mm-hmm. wala ñu jéem bind suñu histoire donte ciow dana ci bari mais dinañ xam li nga xam deug deug moy suñu histoire euh, réew ak suñu histoire suñu cosaan ak suñu ada jërëjëf pa ma jaxaté euh, waxtaan waangi nonu noonu euh, Serigne Saliou Seck mu melni ça continue suite bi nak ñu koy xaar yaakar naa du yam fi tek ko ci suuf mom du wax du wax yo xam ne mën nañ ko dégg waye naka lañ koy améliorer et puis mëna fayalé ciow li nga xam mom la jur je pense que Kalz imam Massamba tënk na lépp mm. te it li mu wax lépp lu am solo la te mm. buñ ko defee rek yaakaar naa mm. euh, mën nañoo am déggoo ci suñ biir te tamit ñi nga xam si ñooy bind téere bi li ci des wala bu ñuy jooyanti ñu bàyyi xel ci parce que tamit euh, wax naa la fii keroog ne la euh, bu fekkoon ni par exemple danoo juum ni Saint-Louis bi date lañ ko créé fekk nekkul date boobu bu boobaa Euh, ampleur bi mën na gën a wàññeeku que mhm. ñu ni diw mi maamam ci côté religieux bi mhm. day dafa xaw a doy waar quoi c'est une question trop sensible ci côté boobu kon bu fekkee ni dañuy wax ci côté diine wala benn këru diine bu fiy tudd rek mhm. dina baax tamit ñoom ñu def ci ay gëstu laataa ñu koy fësal parce que bind tamit dafa nekk lu doy ndax lu fiy des la ba alaa yow mi diin mu nekk kon lu am solo loo xam si tamit ñi koy def am ne juum na nangu nan ko tamit naaskan yu ànd ak dal waaye tamit ñoom bu ñuy jooyanti nañ bàyyi xel ci lu mel noonu am na solo euh, loolu mooy euh, waxtaan wi ñu euh, ubbee woon xam naa dañ koy jeexalee fii rek mm-hmm. euh, jàll nag yeneen pàcc yi nga xam ne ñi ngi ciy ñëw ci kanam tuuti dinañ des ba tey ak réaction bu King FM reportage bu tey bi environnement la ñuy waxtaanee daf ñoo yitteel tey nag ci mbalit mi lañ bëgg a wax tuuti ndax réew mi foo tourné mbalit yaa ngi fii yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci réew mi xëy na nag taw bi aussi bokk na ci li gën a causé dégâts yooyu maanaam foo tourné gis salte beeg ndox meeg lépp jaxasoo dinañ ci ñëw tey te loolu daf ñoo yitteel ci wàllu environnement dinañ ñëw tey Euh, ci répondeur bu King Ndeye bu fekkee baax na euh, naka noonu trafic info ak revue de presse bi nga xam ne moom moo koy jeexal léegi en attendant on va euh, marquer une pause ñu déglu tuuti musique Penda Ba ak Pama Diakhaté et puis ñu dellu soit bégal ci Père Bécaye Mbaye rek ci géwél yi. waa kal jëlal ndand mi ñu dem gaw la jëlal xalam géwél jëlal ndand mi la jëlal xalam Kurmasana Guillermo à 10h passé de 45 minutes sur la première radio digitale du Sénégal euh, Gaolo ak euh, Diego euh, di len ci bégal laataa ñuy dem nak ci reportage bi nga xam tay tey lañ leen andil jëm ci walu environnement Serigne Saliou Seck ngay waajal moom ci revue de presse bi nga xam mo wara war a jotaay bi ci kanam tuuti xanaa di ci delu di nuyu bu baax baax Massaer dinañu entrer en contact ak Massaer légui léegi ci tali bi Daouda ngir xol xibaaru dem beeg dikk bi naka la tëddee naka noonu balaa ñoo jeexal également dinañu jéem a euh, gëstu seen euh, répondeur booking FM ma fatigué numéro de téléphone baa ngi noonu 77 euh, la 846 24 00 77 846 24 00 ñi ngi and ak batay ki nga xam ni moom boulangerie pâtisserie Le Kajoor mini ñuy àndal ci suba si bu ñu xëyee ànd ak ñoom nag ñoom nag. ñi ngi ci diwaanu Ndakaaru ak fi nga xam ne moo di mbuur euh, mbuur la ñu euh, nekk boulangerie pâtisserie le euh, Kajoor fa la bërëb bu njëkk ba nekk seen numéro téléphone yaa ngi noonu 416 59 95 bu fekkee da ngaa bëgg a passé ay commande moo xam fii ci Ndakaaru wala nga nekk mbuur mën nga cee woote bu fekkee ni fii ci Ndakaaru booy boo leen bëggee gis mën ngaa dem Kër Massar wala Kër Mbay Fall Tali Karo seen numéro téléphone yaa ngi noonu 77 889 22 73 wala 77 700 euh, 416 plutôt 59 95 77 416 59 96 95 amenez également euh, adresse email le 1gmailcom 1 arobase euh, gmail.com euh, pour bu fekkee da ngeen a bëgg envoyer ay commande ak yu demee noonu mën ngeen ànd ak boulangerie pâtisserie le kadior di leen gërëm bu baax a baax ci ànd bi ñu ànd ak ñoom di sax xaajagul dañuy ànd ak euh, Massaer léegi léegi ci li nga xam ne moom moo di euh, xibaaru euh, dem bi ak dikk bi xool nu tali bi tëddee ci suba si démb na xaw naa taw te bi mu tawee indi na ay xat-xat ci ngoon gi embouteillage Ndakaaru Njaay yi démb fépp fu waay jaar da ngay gis ni dafa xatoon lool xam naa ni xaw naa wàññeeku ci suba si Massaer la ñuy fekk ji ci tali bi Massaer ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay noo def naka suba si. maa ngi sant bu baax maa nu dem beeg dikk bi demee ci suba si. waaw ak ça merci beaucoup Kals ñu déglu de dem beeg dikk bi jàppal na ñun jógee nañu Ndakaaru jógee Ndakaaru jaar ci autoroute bi amul benn jafe-jafe mais bi ñu ñëwee ba Colobane aussi ñi nga xam ne ñoo jógee vers Padoua jëm si Colobane aussi am na benn rang bu bu ñuy xaw topp parce que gis naa am na lu xew foofu Euh, mais boo ko mais boo yeggee pont Colobane bi aussi wàcc ci rond point Colobane amul benn jafe-jafe aussi aussi presque amul benn jafe-jafe hmm. deux voies Bataya vers euh, université Hampâté Bâ aussi foofu yëpp c'est déjà c'est dafa yaa foofu yëpp yaa malang la def waaw fu ne mën nañ faa jaar tànn sa bu la neex la tànn sa bu la neex la kon euh, xat-xat yi kon wàññeeku na ci suba si waaw xat-xat de autoroute boo jógee Colobane boo jógee Patte jëm jëm Dakar moom ba baa ngi egg Colobane am na bu gudd gudd bu fa mm, nekk mm, parce que mm. adresse baa ngi foofu am ku muy jël xam naa rek am na accident bu am foofu kon démb dañoo yeewoo ay ay ay ay ay euh, ay accident euh, ah, ci euh, suba si donc daanaka gis na gis na gis naa romb naa benn passé Colobane jëm Dakar mais boo passé accident boobu moom boo ko Dakar moom nañu nañu ah waaw wax dëgg yàlla doy na waar sa réew mi doy na fi mu jël sa li bi di jël jël tali bi yëngatu géej géej <laughs> ah, jërëjëf Massaya ñu ngi lay gërëm bu baax waaw jaajëf jaajëf euh, joxante dig daje ëllëg incha allah incha jërëjëf ana ay Massaya rek ay bagage jërëjëf ñu koy gërëm bu baax dinañ àndaat ak moom suba incha allah ci waxtu wi ngir xool xibaaru dem bi ak dikk bi jërëjëf ñu àndaat ak yéen ci li des ci euh, jotaay bu 9 euh, 11 euh, dañuy ñëw nag ci li nga xam ne yitteel nañu jëm ci wàllu environnement xam ngeen ni alxami wala talaata bu jot loolu daf ñu yitteel lool ci la première radio digital bu Sénégal ajaratu Dior Mbodj yegsi na mu Papa Cheikh moom it bokk ci jotaay bi naka noonu Ndey Penda mi nga xam ne wala Ndey Ndey Mati mi nga xam ne moo ñu demaloon ci <laughs> ci ci ci tali bi tey nag suba ba léegi maa ngi juum ci sant yeeg ci tur yi léegi laa santale Penda Badji Ba. Euh, ndey mati ma tegal ko ci pend waaye yëpp baax na xam naa ne génnul kër gi aca Serigne Saliou Seck également fekk si nañu euh, Dior Mbodj ñi ngi lay nuyu maa ngi lay fay Kalz maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci 99 point 4 noo def naka suba si sant bu wér mbaa taw bi sonal la yow non non alhamdulilah lépp baax na waa lépp taw feex jaajëf aca euh, ndey mati également mi ngi ak ñun mati noo def Kalsi ñoom ma ñoo ñoo ngi fii. yaa ngi jàmm. waaw waaw sant yàlla. alhamdulilah euh, Serigne Saliou Seck dellusiwaat nga ci jotaay bi environnement daf ñoo yitteel euh, ci suba si looloo waral ñu def ci reportage. mi ngi noonu looloo tax ñu def ci reportage xam naa bu ñu teewloo reportage ba pare rek euh, environnement moom mooy nekkinu askan wi daanaka. Mhm. dina bëri luñ ci mën a waxtaanee. tey nag dañ ci ànd ak Ndeye Mati mu feggoo feggoo ci ak Aminata ñoom ñoo def reportage bi dañ koo duyoo. dañ koo duyoo ñoom ah. ñaar dañ koo. kii dafa jëli keneen ki wax. keneen ki wax voilà mi ngi noonu. <laughs> reportage bi te dellu si. yenn ci mbeddu ndakaaru yi fes dell ak mbalit la def rawatina nag yu pikin ginnaaw raay Modou war a toll ci juróom benn fukki at ne lu jikk njàkk nguurub Sénégal mooy njàkk. état bi moo ko def ndax service de nettoyage chaque année dafa yàgg am Sénégal fii nga xam ne mooy buntu pikin soo dib moo fi nekkoon soo dib nekk na fi mauvaise gestion. le fils soit Souadib jógee ñu né ñooñu jogé fi benen service de nettoyage ñu wat fi mauvaise gestion bobu tamit daanoo UCG bi nga xamni mo fi né fa ñëlé jaar lay jaar parce que kat yi nga fa ne dañuy ak jafé jafé yu bari Mamadou mom japp né lotissement bu jaga di dong mo wara lu ni mel mooy dafa am ñu xam ne dañoo dëkk foo xam amul on l'a pas lotissé automatiquement mënu fa ñëw amul suñ ko yobbu légui nak dañuy teg bu xaju ko di ñëm tuur ko ci ñom ruq ñoom ñaar ñi le nag ne ci seen xalaat ngir gox yi set nguur gi dafa war a xoolaat doxilinu ngànk wàllu mbalit mi maanaam ngir leen jox cër ba noppi taxawal benn décharge publique. waaw de revoir les structures yi nga xam ne ñoom ñooy war a yore wérgu yaramu nit ñi. li ngay waroon def moom mooy defar leen benn décharge chaque quartier ñu def benn décharge publique bu ba tax benn genre benn rond point bu ndaw rek daal ko daal di ko dër wax leen seen mbalit ñu ko fay tuur dans chaque de la dans chaque quartier su ko defee oto bi fexe di fa ñëw chaque semaine wala chaque deux jours trois jours jël ko. mi ci mbedd yi mën jural askan wi ay jàngoro yu rawatina ak ci weeru nawet gi ñu ne acca mbir mbir maa ngi noonu ah, li ñu nemmeeku nag mooy ndakaaru bëri na mbalit fi mu toll nii ah, nawet bi am na ci ah, wàll ndax ndox moom bu bëree xëy na yenn ruq yeeg ruqaat yi dina ko génnee day tax mbalit mi gën a fës même bu fekkoon ni bëriwul sax di da koy gën a da koy gën a bëril ndey mati Aminata moo nekkoon ci terrain bi mais reportage bi ni ñu ko déggee dafa mel ni yitteel na sénégalais yi ni mbalit mi bëree ci réew mi fi mu toll nii waa mbalit mi ni mu bare euh, dafa yitteel sénégalais yi mhm. démb sax maa ngi ciy waxtaan ak euh, Lisa Georgia mu ni ma mhm. Mhm. dañoo waroon indiwaat méthode boobu nga xamante ne mooy dañ doon bàyyi euh, nit yi ñuy bale guddi gi xam ne ñu ne da ngay yeewu suba rek fekk mbedd yi set ñu ne loolu nag c'était au temps de Senghor je sais pas wala temps de Abdou Diouf loolu aussi méthode bu baax la parce que buñ defoon kenn ku ci nekk fu ngay liggéeyee soo paree nga bale ko ba mu set kenn ku ci nekk sa kër boo ko balee xam ni koñ bi aussi sa buntu kër yaa moom aux tamit yaa moom nga bale

du am sax accès ci koñ mhm, bi mhm. te parfois nga gis koo xamante ne boo taayalee ba mel ni ñenn ñi dangay mhm. dégg oto mbalit nga ne ah maa ngi jàpp nanga wala maa ngi nangam nanga nga pare am na benn local bu nekk ci koñ bi wala genre parce que man gis naa ko nga dem sotti fa sa mbalit jugu foofu fees après nga sonal waa koñ bi affaire bi xeeñ te wala bàyyi roq yi ñuy dugal mbuus mbalit <laughs> tey ah. génne mbalit yi ci <laughs> mu ngi noonu bëri na bëri na ci ndakaaru euh, Dior euh, mhm. loolu day yitteel ñi nga xam ne tamit ñoo yor ñoo yor kër yi muy jigéen ñi ak ñi nga xam ne xëy na ñooy defar bu ñu xëyee euh, mbalit moom bu bëree ci réew mi rek musiba lay andi ndax mën na andi ay feebar musiba mbaa bokkumba bu nekkal mën na koo indi mhm. parce que boo gisee tamit bu ñuy wax set dañuy koy commencer d'abord ci suñu biiri kër mhm. ñun ñoo war a commencer set après état fekk ñu ci parce que boo gisee politique chef d'état mi ngi naan zéro décès commencer di amal ay set setal ak yu baree bari Mhm. pour euh, fexe ba ñu mel ni kii yi mhm. waaye yaakaar naa ni loolu du yombagul jamono aka ñu ko sori <laughs> parce que da ngay gis ku naan kaasu kafeem sànni ci mbedd mi mhm. ku lekk banaana sànni ci mbedd mi ainsi de suite ainsi de suite loolu nag bu ñu ko defee yaakaar naa ni nekkul ni ñun ñooy seetal mais dañuy gën a taqal euh, ba pare tamit Kals am na benn constat bu ma def xaw ma nag nit ñi bàyyi nañ ci xelam déet chaque jour oto yi gaare ñu ni dañuy tuuri mbalit mi waaye mbalit mi xaaj bépp demul li li li toog a ëpp. li toog ëpp ndax ñoom ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy ne ci auto mbalit yi. Mm-hmm. dañuy wékkub saako. Mm-hmm. nga gis ku tuur si mbalit ñu xool lañ ca foro foro for bu dee biteel ñu for dugal ci mm-hmm. bu dee ay sagar ñu for dugal ci bu ñu foree fore for daanaka la ñuy daanaka tuur yu ñu kalas <laughs> waaw dëgg la de boo bëggee dégg dëgg lay dem mbëbës la ñuy foraat ci oto bi moo ëpp lay dem mbëbës waaw fu ñu jëmee mbalit mi mbalit mi ci kër yi lay génnee xam nga ci am na mbaliti patron yoo xam ni neexut a neexut romb. ay mbalit yu baax la. mbalit yu baax la <laughs> ñu ñoon dañ koy foraat am na ci caare am na foo xam ni mbalitu tubaab caare am na foo xam ni ñi bi ñuy nekk xale doon nañu wuti mbalitu tubaab am na foo xam ni Dubaay lañ koy wooye boo demee moo raw mbëbës manam xeetu prise ak yéereeg dàll ak rallonge ak. Ah, loolu la réer kara loo bëgg ci àdduna rek boo demee am ko fa. Hmm. te loolu lépp maanaam bu ñu ba ba ba fa la euh, waat. Hmm. ko fa hmm, ki de. dana déjà aussi euh, un autre problème qui se pose mooy euh, bu weesoo wàllum mi santé bi nga xam ne daf ñu yitteel aussi euh, xale yi nga xam ne xamuñu dara des fois nga gis gone gu ndaw euh, mu nekk ca kaw mbalit ma di foo te xamul sax li ko ci mën a fekk et ça c'est très dangereux sëñ Saliou loolu lu lu lu doy waar la te tamit am na ci biir ko ñi ndax Ndeye Mati wax na ko sànq mm-hmm. am na ñoo xam bu ñu demee pour yóbbu mbalit ci oto mbalit yi mm-hmm. bu ñu gisul oto bi am na benn barab boo xam si moom lañ bàyyi teg si koñ ba boo moytuwul sax mm-hmm. euh, dina dem ba dina dem ba yokk foofu noonu jàngoro yoo xam si que xale moom xamul lu bëri ñu toog euh, ñu bu fekkee ni xale yi romb na ñu toog romb na mbalit ñu teg ko day àndi jafe-jafe moom ay fowukaay la koy teg te loolu noonu mën naa andi jafe-jafe yu bëri beneen bi ci des mooy calze nit euh, am na si ñoo xam si dañuy jël mbalit pour dem di ko yóbbu ci euh, oto mbalit yi ñu fa oto mbalit au ñu teg ko sax foofu man je pense que loolu noonu moo gën a nekk danger dañ koy dugal ci rigole yi ak kanaal yi nga xam si def nañ ko te booy xool tey ji inondation bi aussi loolu bokk na si li ko andi tey bëri na ci ind kanaal yoo xam buñ ko ubbi mm. woon buñ fa génnee li nekk ci mbalit li nga mm. xam ne lii nii moo tere woon jàll ndox bi. donc loolu noonu aussi ñu bàyyi si xel bu baax yi ngay dégg nii yëpp. Mhm. Euh, mbalit mi am na ci am na ci wàll. am na ci wàll parce parce que affaire bi ndox mi moo jàll te ndox mi mbalit moo ko fàtt. te ay nit ñoo ko fa dugal. waaw nettoyage daal ci réew. Mhm. dafa dafa am solo

organiser ay set setal euh, moy association sportive yi nga xamné moy mooy euh, nako nonu ñi nga xamné ñoo dëkk ci gox yi dimanche bu né euh, ñu génn lool dafa melni de plus en plus aussi dafa melni ni lu raar léegi gisatuñ ko. loolu bi ministre bi di sogo commencé programme Sénégal zéro déchet. gis non nañ gis noon gisoon nañ ci <laughs> koñ yi gisoon nañ ci koñ yi da ngay gis sa benn groupe. Euh, organiser sen set set ministre bi fekk ci len ñeu appuyer len indi len ay matériel ak yoyu ministre bi mo ñu doon door bobo waaw bobo programme bi loon jema feussal gisoon nañ nak ASC ak ñu ci bari commencé woon ko diko def di organiser ay set setal euh, bañu doon wax euh, ku ci contacter ministre bi rek dina la fekk ci hmm. pour jappalé la ci lool mais yaakaar naa ni ñoo xaar sax ba état nan programme zéro sec yoyu ñun ñoo ko war a commencer d'abord hmm. ñu fekk ci ñu ci lepp luñ ci jappalé rek ñu xamni jappalé nañ ñuko mais ñun ñoko wara commencer parce que bay ci say weewu tànk bala nga laax jaay da ngay laax lekk ba noppi mi ngi noonu ah. euh, faaw rek kon ñu bàyyi ci xel te tamit mbalit kenn mënul dëkk ak moom boo gisee ay ginnaaw raay yooyu a dem ay canal à ciel ouvert ñoo fa nekk mm. canal yooyu nga xam ne dañu ko defoon pour évacuer euh, les eaux de pluie nga xam ni euh, kenn tëju leen kanaal yooyu aussi mieux vaut que état mu def ci ay effort mm. parce que population ginnaaw raay yàgg nañu jooytu loolu mm. dañuy jël kanaal yooyu sotti comme mbalita sotti sotti ba finalement bu nawet approché mm. maire bi ci boppam mooy jóg avec ses propres moyens être ak yeneen appui ASC yooyu di bale kanaal yi di nuqati loolu lépp pour dindi mbalit mi pour ndoxum taw mi bu dikkee mu mën a jàll te loolu ña ko fa def du ñenn ñu dul askan ba fa dëkk kon nag ñun tamit faaw ñu bàyyi xel ci loolu li El Hadj Diouf waxoon naan euh, bale beeg defar bi euh, daa war a jiitu ci kër gi ba noppi doogu génn ci buntu kër gi mu law nag dem ci mbedd mi comme ça réew mi mën a set te loolu lu am solo la euh, ñi ngi leen di gërëm bu baax ci loolu ngeen addu des na jeexalaguñ jotaay bi revue de presse ngi ñëw Ndeye Mati merci beaucoup ci reportage bi nga xam ne peloo nga ko ak aminat ah ñu ngi la ci gërëm bu baax ah, loolu di woon euh, environnement bu tey mu yitteloon ñu wàllu cet gi ak mbalit mi ne saay ci réew mi dañuy dem seeti ji euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Saliou Seck euh, Dior Mbodj waaw xale bi nga xam ne daal bu ne ubbil réew mi kontaan mi ngi nii toog tarkal mi ngi nii laaw la cet bu ne ubbil daal <laughs> mhm. kenn du toog kenn dootul rpt déedéet booy papa yi màgget nañ gisoo yóbbu na ñëpp retraite moonu Mohamed Ndiaye fan yi dem na conseil daw na daw na daa jaax daa gàddaay ah, Ahmed moom bàyyi na <laughs>

te ñu dellu si waat daanaka yéen kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy dugg ci géej gi boole kooku dinu faram-fàccee la xew ca île des leen muy l'observateur L'As Les Échos Vox Populi Source A La Tribune Le Quotidien ba ci Direct Info ubbi l'observateur yéen kaay bi ne la xew ca île des leen kay jéyee dëgg la ndax nag ñeenti doomu aadama ñoo ca ñàkk seen bakkan fanweer ak juróom daal di cay muccee ca ñoom sax ñaar fukk yaak ñeent ay doomu réewum Sénégal lañu ñeent ya nekk doomu réewum France ñaar ya di doomu réewum Allemagne yeneen ñaar ya di doomu réewum Suède ak kenn ku bàyyeekoo réewum Guinée Guinée Bissau yéene kaay futur média bi ne ña rëccee ca suuxu googee yépp nag subaak ji dinañ leen delloosi ci diwaanu Dakar Vox Populi ne mbir mu yéeme itam xew na ca suuxu gaal googee juróom-ñeenti tànk yu ca nekkoon toll ci ñaari at ñoom dara dalu leen te dara xusiwu leen naam ne gaal ga dafa këpp l'observateur ne si liggéey bu am solo te mucc ayib la ca sapeur pompier yi ci njiitalul colonel Pape Anse Diatta def waaye ci njàppandalu ko maître nageur yi président de la république Macky Sall itam bi mu yégee la sole dàllam dem ba àgg noppee te masawu coono njaboot ga ca lorule ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de la pêche a Mbengue Ndiaye médiateur de la république Alioune Badara Cissé ba ci ministre des forces armées Sidiki Kaba ñoom ñëpp demoon nañ fa jéye ja xewe moom Sidiki Kaba sax daanaka yéenekaay yu bëri xamle nan ni mbokkam aqan bokk na ca jéye ju mel journal bi ne lu ci man di am daal diiru fanweeri simili président Macky Sall def na ko ca barab moo fa suux ba fanweer réeroon ca ñeent ñàkk ca seen bakkan ñetti doomu aadama yi itam ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident bu metti bi am ni ki démb ca Petit Mbao ubbi L'As Quotidien yéenekaay bi ne fanweer tamit jële nañ ciy gaañu-gaañu yu metti ba àgg ci lool ñu yegg ñun xooli fu commissaire police bu ginnaaw raay mujjee ubbi La Tribune yéenekaay bi dee média bi ne kii nu tuumaaloon moo doon agressé commissaire bu bu ginnaaw raay Sayer Mbeng lay wuyoo a anteek wàllum yoon source a mel ni ku koy dëggal boole caaka di joxe tegtal yuy firndeel ni Sayer Mbeng dafa wéradi te it àndul ak xelam ndax nag ca centre psychiatrique ba nekk ca caaro yi lan ko doon toppatoo te it docteur Ahmed Saloum Diakhaté moo ko doon taxaw li nag tax waa këram jàpp ni seen doom mën naa mucc ci wàllum yoon ki muccagul ci yoon kay moo di Ibrahima Diop l'observateur ne Ibrahima Diop mooy waa ji ñëpp déggoon ni ki démb mu doon xamle ni moo jiite ña doon yàq stade Nelson Mandela ba nekk ca Mbàkke Bawol taxit jamono ji police teg na ko loxo journal bi nekk li mu xamle moo di nañu ko bàyyi lu ko mooy dina dem jébbal boppam police source aané xalifop sëriñ Maam Mor Jaara Mbàkke kay li mu xamle moo di bés bu nu bàyyiwu taalibeem boobee moom ci boppam mooy sol dàllam dem jébbal boppam police dem ba jeex la ñu bëri def ngir xam lu waral cell gi sa Seck nekke l'observateur njiitul parti réew mi daal kenn mënatu koo dégg wala nga koy waxloo ci lu amul solo loolu nag di tekki ni bay sa waar ba mu sës ci ñag bi ndam la waaye tam sàggan ba liy raam jiitu la ci ñag bi ba màtt fa nit itam coono la lay jural ndax nag fu màtt màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet déggal jooju wax rek Serigne Saliou Seck jërëjëf ñi ngi lay gërëm bu baax ci kàddu yu rafet yi ñu ngi lay gërëm euh, ëllëg incha allah dinañ àndaat ak yow euh, ci beneen de presse mais ci kanam tuuti jotaay bi nga xam ne euh, King FM rédaction bi dina leen ko proposé mooy midi culture ajaratu Dior Mbodj mii lañ ciy àndal ak Serigne Saliou Seck ngir gën leen a euh, euh, leeral ci ay xibaar dinañu jël nag lépp loo xam ne aada ak cosaan la euh, boole kook actualité bi tënkal leen ko léegi léegi ci kanam lay doon à partir de 12h naka noonu revue de presse bi mën ngeen ko fekkaat ci suñu ay plateforme moo xam Facebook bi wala YouTube ou nga dem ci www.kingfm.sn merci Dior Mbodj kon yow rendez-vous tout à l'heure waaw xam naa dig daje rek ci waaw ñu ñu ñu ci jotaayu xibaar. ci jotaayu xibaar yi. jërëjëf ajaratu joor ngooj damaa bëgg nga dem màkka déwén moo tax ma lay ma lay toftalal suñu borom mën na ko la ci tegal ajaratu allaaji kalsu waaw boo yegsee bu Pape Cheikh ne allaaji rek nga ni ko ma ni ko allaaji ma ni waaw mu jeex tàkk jërëjëf ñu ngi gërëm baax merci euh, Ndeye kon euh, ñu joxe dig daje incha allah lan ci benen reportage bo xamné ne euh, sociétal lay doon ak environnement mardi prochain suba nak économie mo ñuy yitteel bu soobee yalla walum koom euh, dinañu xol fu gafak Sénégal tollu ce sera demain à partir de 9h bu ñu ubé jotaay bi la ñu dégluwaat toute musique delu ci yëkëti jotaay bi 11h inshallah 30 Papa Cheikh dina ñëw gunge leen ci King Feeling lolu moy jotaay musical bi gëna yaatu ci kër gi moy yendu bi nga xamné mom mo moo leen koy proposer ak ay feeling am ce sera à partir de 11h30 jëm ak 14h 14h King Détente euh, ce sera tout à l'heure avec Lisa Georgia animateur de Top Top on écoute ce titre de El euh, problème une façon de marquer une autre pause musicale euh, dig